jërë ngeen jëf mbokk internet yi mbirum Ousmane sonk ak Mame Mbaye Niang ak combat bu ba daanaka mënees na ko xaarandi niki le 26 octobre bi ñu dëgmal uh, foofe ca cour suprême enrèlement fast track fast track nag uh, pourvoi en cassation bu Ousmane sonk nag ci mbir mi nga xam ne moo doxoon ci digganteem ak jëmm jile di Mame Mbaye Niang uh, mi ko fi doon tuumaal lu jëm ci diffamation loole nag daanaka mënees naa xaarandi ñu teg ko ca taabu ji le 26 octobre bi dañu dëgmal moom njiital parti bile di Pastef di Ousmane sonk nag nga xam ne sax dañu ko daal di déclaré woon coupable diffamation ak injure publique ba noppi daal di ko daan six mois de prison yoo xam ne sursis lay àndat ak deux cent millions yu war a dàmpe kile nga xam ne moo di ministre du tourisme ca jamono jooje di Mame Mbaye Niang mi nga xam ne sax moo ko porté woon plainte ngir diffamation ak injure publique ngir casser décision bi ñuy jël nag nga xam ne cour d'appel moo ko daal di jëloon le 8 mai bi ñu génn ay avocat wu opposant bi la nag dañoo daal di amaloon li ñuy wax pourvoi en cassation gannaaw ba nga xam ne nag juge bu tribunal bu Ziguinchor daal di nay joxe ndigal ngir nag ñu bindaat turu Ousmane Sonko ci liste électorale yi. journal bi lee di Les Échos nag moom dañu xibaar ne rek euh, Cour suprême daal dinay relancer dossier Ousmane sonk Mame Mbaye Niang euh, bu ñu sukkandikoo ci journal boobe nag mbir mi daal danañu ko àttee niki le 26 octobre 2023 foofu ci chambre criminelle bu Cour suprême euh, boobi gannaaw ba nga xamee ne rek ay avocat ñoom moom Ousmane Sonko dañoo dal di déposer akub requête nag au fin de pourvoi ci nag li nga xamante ni mooy dossier bi doxoon ci diggante Mame Mbaye Niang boobi ay ñooñu Mame Mbaye Niang ñoom tamit envoyé nañ li nga xam ne mooy seen mémoire réponse loolee nag ñu def ko ci lu toll ci fanweer ak ñeent ci ay page téere bu gudd lool waaye nag ca jamono joojee ay avocat Ousmane sonk ñoom téere ba ñu bind ngir seen pourvoi en cassation boobee ñu ngi ko amal ci lu topp ci fanweer ak juróom ci ay page kon nag des xaarandi le 26 octobre bu ci àllande ana fan la wanante di mbujjee ki gëtam diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ak seen dossier boobee jërë ngeen jëf mbokk internet yi li mënoon xibaar yi ci biir vidéo